mbokk yi huitième combat de la soirée ci diggante Saa ak doomu jàmbur saawalo Waalo moo ñu woon ginnaaw wala boog moo nekkee à doomu jàmbur moo féete à ñoo ngi lewaatoo ñoom ñaar saawalo doomu jàmbur ñoom ñaar ñëpp seen bopp yi. eh doomu jàmbur cokkaas na léegi saawaalo dóor na léegi olof Ndiaye nee na doomu jàmbur ku ko yàq donc koo jurul eh, doomu jàmbur dóor na ko kuubu dal baadu ko da koy eh waaw waaw saawaalo réussite na doo na ko mais doomu jàmbur mi ndaanaan la de mu ngay bëreeg moom doomu jàmbur saawaalo saawaalo fa mu jàpp dëgër na caxabal na ko eh waaw waaw <laughs> eh, waa saa waala doomu jàmbur xale yaa ngay bëre caxabal wàcc ko wande jàkkaarloo moom saa doomu jàmbur kii laa bëgg ci waaye la waatoo ren ñun déwén bëgguñu loolu saa doomu jàmbur kalba déedéet déedéet zongale na ko da daanu da daanu da ngay daanu saa waalo daanu na zongale ba du doomu jàmbur daan na doomu jàmbur daan na saa waalo làmba ngi noonu zongale ba ñorul saa doomu jàmbur daan na